li fi des nag ci lay jeexalee ñun bi ñuy xeex ñun ay ndaw di xeexa suñuy morom ci lycée yi ci collège yi ci université yi di signé ay accord ak gouvernement pour étudiants yi seen di seen dund gën a yokku kooku di xabaabal di bëri wax Ousmane Sonko il était dans quoi te du nelaw bëri wax la loolu la buy am njàng la ñu jàng jàng ko buy jub bala ngay wax jumum xaalis ñu dénk la nga yor mosuñu laa dénk mosoo xam luy milliard mosoo élite kenn kon mënoo bàkku dama jub ci say morom yoo xam ne nii lañ yor ay téeméeri téeméeri milliards la te duuf leen ci baaram il faut que ce garçon ce monsieur se calme wax lu dul dëgg bëgg ci tabax tur ak am ci nguur nax sa bopp la day mujj naxa say mujj daanu maintenant jàmm lañ bëgg waaye nag bukki bu fàddee waxambaane te doxin war l'état dina leen jox sécurité ak kaaraange bu ma sëkk ak barke mais politiquement tout militant bu song suñu coalition on fera face avec lui Abdoulaye je en tour désormais jusqu'au jour des élections chaque vendredi soir ba lundi matin sur cette tenue-là, je serai sur le terrain avec mes équipes partout au Sénégal, dans ma région, dans mon département. On se pour notre sécurité politique et on face. En tout cas, lu ñu déggee du ñu fa may personne nga saaga kaste wala menacé di nga nag ñu saalum saalum lañ am na loo xam ne nii yaa koy fajal si man kooku wala dañ ñu waxoon ci sagata siiɗa dogde sina yalta jogoto laɓi walla sawru walla jaas mooy waxambaane boo bañee daw booy génn dangay waajal sa bopp parce que moom du la daw la bu ko kenn nangu bu leen jàmbat ñu nag ñoom la ñoo leen ëpp bela amuñ bi laa ëpp leen mbooloo mooy li ñu nii ëpp leen expérience ëpp leen xam-xam dañoo mën a luñ mënewul mooy sos tool cokkaas wax dul dëgg et on fera face pour la jeunesse muy ci marché ba xam nga fii luñ fii kumtoo amatul léegi fukki weer ak fi am des ñoo fi indi waxu seen seen wax yu ñaaw yooyu man xaw ma ko ma <laughs> ñoo ko fi dundee waaye dafa commencé leen wax xatt nag luñ ci góobee nañ ko boo déggee kuy kuppaate di saaga di tëkku di xaste di jiiñ ay nit taal ay kër naa leen bés bu ñu ko defee ci la ñuy xamee ñan lañ ko seqal